very much mbokk yi sant leen gërëm leen bu baax a baax ah, ci time nga xam ne moom ngeen jël rek jox ñu ngi waxtaan ak ah, lawyer Assane Martin Assane thank you very much ah, ci time bi appreciate nañ ko bu baax a baax gën nañoo waxtaan nag waaye sant yàlla Assane um, ñu ne coow bëri na wax bëri na ci réew mi first things first um, issue padiem bi with the latest li nga xam ne moom moo xew uh, do you feel ne uh, dañu war a xoolaat nag li nga xam ne loolu mooy di whole padiem structure an naka lañ ko dee fayee ak yu demee noonu ak entitlement you know lan mooy sax xelaat ci mbir mi. <coughs> jërëjëf pa nuyul neen again nuyu déglukat yi. di leen sant di leen gërëm um, di wax ne rek as always uh, baax na ñuy waxtaan saa yoo leen ooyee ñu make sure rek ñu avail time pour waxtaan uh, yëfi réew nag yombut. Mm-hmm. Um, Balama Dugas is a question me First of all, you know, new said new fun tolu asireu uh, liso sayrewa uh, bankobe alhalo minto film nekani pa is very very concerning moy dañuy ragal ñun we are very concerned it's sad dafa dafa daw yaram I'm not duga a question because uh, dundin bi mu ngi metti ci gambians they are frustrated um, system bi nuñ ko xoolee comme li ma doon wax ne is next to a failed state nit ñi nag duñ understand lii mooy ne rek um, broken systems mooy loo xam ne dinañu dina topp xale yi for generations uh, man ragal naa trop the future of this country let me repeat that because dëkka boo xam ne amul rules amul regulations ku nekk xëy def ni la neexee dundee nu la neexee um, dundan bi mu ngi miiti and I don't see anything that government is showing for help ñi ñu dunda dunda yomba but again um, nañ bàyyi suñ xel te dëgga dëgga am um, pa du duma loo xam ne dañ koo rusee dañ koo wax ñun jamono dañ wax jamono yaaya jàmme jamono président adama baro dinañ wax pour continue to shape and you guide suñ démocratie du pour ñun du pour man pas is always xale yi la pour balaa maa lifin rek ngeen jégal ma lii Abraham nga soo ñëwee duga si yëfi <laughs> lifin nit ñi foogee ne loolu la ñun itam foog ñuy waxtaana askan bi gaay xam fu ñoo waxee ñun ñëwuñ pour talk pour ne understand nga this thing is about what we can do pour ñu make sure xale yi ñëw ak ñi nga xam ne munuñ xamuñ ci liggéey bi ñu mun leen a gaaganti mm-hmm. te ñun pa li ma wax la rek yàllaa ñu bindee noonu te dinañ continuer di gaaganti ba pare di gën a xelaat xelal xelal nit ñi pa ci gàttal yes um, ngeen jégal ñu um, sa question was naka lañ gisee uh, per diem system bi in government I think ne loolu mooy sa question padiem dafa nekk loo xam ne euh, culture bi yàgg na fi soo xamee mooy li ñoo jël di fay government saay bu nit tukkee génn ci réew mi euh, yow guddi yi ngay def ci biti ñu fay la ko ah, jamono dox na lu yàgga la nag is a practice la boo xam ne government si suñ luwaay euh, government si order si amin um, public order si general order si di ko fa gis ne xam nga li ku tukki Eh, nguur war na laa fay li nga fanaan si biti waaye dafa nekk loo xam ne soo waxee padiyam eh, out of what um, skiing scandal or saga put it aside Padiem eh, dafa nekk loo xam ne nag dafa dema dem bi nga xam ne yéen nguur yi munuñ koo contrôle mu jamono jawara am na you know ñi daan tukki well jamono ya président jamme ya jamme tamir am na ñu daan tukki waaye it becomes ñeneen ñi nag dañ ko dee abuse we some ministers, we some directors, director generals, you know what I mean, government officials, almost all departments. Lately, now, jamano ya jame ak baro observe nañ ne you know si late party people were nit ñi ñu ko dee abuse abuse mooy ne rek nit ñi xaw man nu ma ko mën all of si nit ñi dañ ci dee jël di ci def mu ëppa di ko dundee ñii di ko use ba nga xam ne léegi dañ koy sampe ay kër di ko jëndee ay moto padiyem dañ daan fay jamono jawara ñun remember nañ it was ninety pounds ninety pounds a night waaye jamono yaay jàmme ñëw na slightly mu increase waaye léegi ni ma ko gisee dem na bi nga xam ne daf dee dem fii defoon nañ fi programme maa yow most of time dañ dee wax affaire yi per diem ak affaire yi coupons yi fuel coupons si dañoo wax ne abuse mooy um, dañ ko de abuse so in essence mooy ne ñeneen ñi dañ koy jël di ko dundee yenn ministres yi duñ toog yenn directors yi duñ toog ñu ngee dem left right and center di tukki te lii mu nge damee dëkk bi te loolu la ñoo wax noonu abuse boobu noonu nag dafa war a stop and te président Barrow ñun yaakaaroon nañ ne moom dina ci def dara moo tax ñu indi change bi waaye moom si boppam sax pas daf dee too much exploit on the system te loolu observe nañ ko fi mu nekk waxante dëgg moo des parce que lii ah, nit ñi ñu ngee sona nit ñi ñu ngee coono nit ñaa ngee def dundo bi koregut lekka yi baaxut nit ñi ñu ngi sona si béykat yi you know lopitaan and everything mm. so yow ngay jël loo xam ne benn guddi four hundred dollars per night or three hundred dollars list per night gis governments yoo xam ne ay you know central bank oo yene ñeneen ñi seen per diem mun naa dem even be five hundred dollars even a president's per diem dafaa dem be five hundred dollars lii nag warut nañ leen ñu cut waste si gàttal pa mooy ne rek ñu jël xaalisi nguur gi xanaamoo la taxpayers money la ñu respect ko mm-hmm. ñun looloo ta ñu indi change mm-hmm. moo tax ñu ñëw si change bi ñu ngi abuse change bi tamit go ahead so amoon loo doon advice uh, the minister of youth and well. parce um, que ndox bi tuuru na tuuru na ba pare eh, coow am na wax am na soo di woy foor rek moo fi des. waaw um, ñu bëri wax nañ si eh, ñun tam dégg nañ si lu bëri si um, luñ see mun a wax duñ si mun a wax lu bëri waaye again luñ see mun a yokka comme li nga wax la advice mooy ne rek he has a lapse of judgment in the sense ne understand nga loo xam ne eh, dafa dem si ñoom. understand nga nit ñi gis ne xappun na comme ko gaay wax la people have to call call out what happened mooy li ñu war rek dañ ko leak pour ñoom xam nga understand nga su ko defee loolu moo tax ñu mun a um, um, ñu ne delloo xaalis bi delloo nañ ko but again li ñu doon mun a advice mooy is a lapse of judgment on his side um, personally um, knowing that understand nga you can be cool but uh, advise not only him, to all the ministries and ministers moyne let them not be abusing per Li lii dafa am solo trop ndax xaalisi nit ñi la tey mm-hmm. nit ñi dañ soona soo buñ tukki tukki tukki yooyu am na ministre yoo xam ne duñ toog tey am na jox ma jox la yeneen yeneen ministres yi sax ñun déggatu lañ dama laa jox français ana Amad Ba mes kenn xamut ana musa Dramé mes kenn xamut si luñ toog they are hibernating gis nga ñeneen ñi ñu ngee tukki di left right and not only the minister of youth and sport health tukki yaa ngi foofu noonu justice you know fisheries you get them left, right, and center. It's costing the nation a lot. And I think um, mm-hmm. after a subsequent government, we knew, then I said, Lubari the Minister Baro, under President Baro, how much waste la Depsi traveling cost? Because leader am sorry. Why Puru advise uh, Minister Bakari Baji, na muitu, because by tamit politics, This na tamit, ñu Lubari génn di ko defend and so on, The wax lu nekk, gëgg nañ leen. politics pa du politics du bilaay walaay talaay politics du saage dégg nañ tamit si ñeneen ñaay fi IEC chairman yooyu bekkut si bilaay ku la daaxa wax bilaay walaay talaay wala génn fii di wax ne ab testimony Ousainou Darboe su buggee mun na am thousand testimony président Barrow mun na am thousand testimony si caractère nii laa mel ak yooyu noonu politics ëpp na loolu na gars yi dal Euh, Bakar yi ak ñi ko difen lii du politique yi coob coppaan doo doo mun a jaay nit ñi coppaan ñoo fii di wax ñu ñi yëpp ñu ngee gis te am na wax yi ñëw yi moom laa doon wax maa ngi dégg ñu ne ñu ñëw waaw Bakar su su bëggee KM ak yooyu noonu su ñëwee boor yooyu noonu um, his words will come to haunt him na nañ moytu ñu tey ah, nit ñi nelawuñ kenn mënu fee nax kenn so na foog ne lii am nga dañ don't try to defend the indefensible loolu mooy problème bi so ñii di daw leen soo dal après loolu dafa tax mu indi lu ñoo ooyee cultism because dafa mel ni yow pas soo amee ay nit rek saay boo defee dara roog awul correct rek ñu génn si loolu moo breed cultism in our politics but in short mooy rek advice moo ko wax rek mooy you wàññi tukki take ministry of youth and sports tamit you know sometimes comme ni ñeneen ñi dee waa you know sports events yoo xam ne ay two three weeks opening closing events rek doy na ministre most not only him even certain ministers four days five days waaye ñeneen ñi dañoo dem ten days ñu ñëwaat noppaleku two days workshops yoo xam ne mara day taali pa dëkk bi is a failure and I don't see any success story let me say this sorry in any ministry since 2007 17 Okay. Gisuma Ben, as far as we are concerned, evaluate any ministry ben minister bu bëgg a ñëw nga ñëw fekk ñu or any spokesperson of government nga since 2017 when the change came in pa I am telling you this. I haven't seen any ministry of in the Gambia with a success story. Mm. Wow vice président Nela na fale legi léegi moo ñëw sur exam risol seeg yooyu ñëw you know he was hibernating we never know him man most of us we don't know who higher minister of higher education was back them four five years te tey soo demee laaj yenn xale 95 percent of the xale basic education xamuñ seen minister? is a flop it's not it's not a good thing I presume you'd see. really is the concern Pa man foofu laa ragalee suñ réew youth si ñu ngi yaaxu pot uh, bi naan gi drogue bi vuu yi you know it's too much xale yi amuñu liggéey raba raba du liggéey so therefore yii mooy yi nga xam ne celeen yoo xam ne Bakary mu ngi ko am moo tax yi nay su ñëwee fii di defend indefensible mënut a dem eh, but si gàttal rek mooy rek padiem moom na not only Bakary for him but for any other ministry we will watch and one day we will bring all this to book Assane um, laal nga mbiri xale yi exemple am na xale yi daanu nañ daanu yu métti sa gis-gis lan moo war a lii and again do you feel ne uh, nguur gi uh, maanaam si seen guidance guide uñ xale yi ni ñu war a guide xale yi and of course obviously ku nekkaa ngee point at covid uh, ne contribute na ci li nga xam ne moom moo tax xale yi war a fail lan mooy sa gis-gis well I mean pa ba we are struggling man di the future of Halei, the future of this country President Barrow I mean to be honest I don't think he's in control I think certain people are in control of this country moo tax Minister ne ministre yoo xam ne du look at minister of basic education you, she ken xamul da lifin la mu nga yu nga xayba ne noobu kenn du leen are where is their policy okay. where is the direction okay. but again come back to standards mooy li xew ni li ñu dal gars yi si bi understand nga li ma wax nii xale yi resolve on this part certain subjects and so on xale yi they fail them but for what English and maths a country you want to develop without having this basic English and maths, you, know, you know, look at the schools. Okay. And then public schools, they are not functioning. Time you have, even higher education togu you bah doko amsi college pa mandamaran eb college students suma joga and birka ma joge from course also Then la wax yene sen togu sen kamay send toilet See, you know so ñewé basic education i am dama ragal pa legi primary school so wacce binam you know where is ethics? Where is discipline? Mm. Lan moo nekk si school so we have to be very very fearful man mosaa toog ak benn ex minister We like toog talk. Maneko, if I watch my country I cannot see this in the next twenty years ñun hale yi fi mu nekk mara day taal education has failed agriculture has failed health moom waxee noppi you understand nga ñëw ministry of fisheries kenn hamut jën ñu ngi leen a jël fii di leen génne and so on so forth license bi doon non tourism moom um, Ahmad Ba kenn déggaatu ko Moussa Dramé kenn déggaatu leen who, who are they the one in charge I don't know ñun ñu I don't know what President Barrow is sitting on pa okay. it's, it's a question um, again um, what do you think loolu you war a def pour uh, make sure ne failure bi du repeat ci waas bi do you think ne dañu uh, war a xool uh, policy towards uh, li education system bi uh, maybe um, beef standard si teachers yi because am na ñuy call for a teacher yi eh? mm. every year dañ leen war di jox exam mm. exam yi ñu lay jox xale yi ñu seet ndax mun nañoo pass off <laughs> or not teacher bu you know nga toog True, true. You all, everybody who is in responsibility in terms of teaching and so on. Teachers see, uh, dañ am refreshers and retraining. Um, teachers see, si holiday be government war noon in the a kind of incentives holiday bi ñu am noonu two months of this so called um, the summer holiday ñu def teachers yoo xam ne ku nekk two nga dem sa inter I mean li ñoo ooyee refreshers or training for two weeks su ko defee by that time what you can do as a teacher mooy ñu jox la refreshers train la and so on and so forth boobu dafa nekk special training for the teachers understand nga but again, what we can do is to have a reform of the entire education system. Degala Nyun Amne structures is not only a uh, structure as a building but also teachers mm. Gambia amna nañ structures but hale yi fi nekk nii pa xale to be honest you know what we've seen mooy rek definitely uh, teachers He has to get involved they have to be motivated mooy ne dañ leen war a jox ndam lifin you know least pour make sure ñoom itam ñu toppatoo seen boppa and so on and so forth but again you train them because is a certain countries what they do is su so if this thing even ñu jox leen two weeks you are ne ku teacher buneka nekk nga apply nga two weeks training boobu no. It's for free. Pour make sure like, more oriented, la face of challenges in and so on and so forth. So that country move forward. Um, so you're, uh, you believe in new train guy rather than join exam every year. Um, well, that training, it just gives you refreshment and so on. So what defee foofu sax mun ngeen a am um, questionnaires, understand nga could examine them as to, you know what I mean, whether they can pass or fail. Because remember, uh, the education system is not lucrative. Amut xaalis comme So teachers you believe they are just sacrificing. While they su fekkee ne da nga train nga ne uh, teacher be understand nga da nga leen a exam ku passut nga génnee leen dañoo end up <laughs> pass, you understand? standard mun ngaa am teachers yu bari def exam yëpp fee Legi da ngaa wax ni classes yi duñ am teacher what we can do is to improve the guy because xam nga affaire exam exam is just a test for everybody Hale so soo gisee ñu leen put under pressure is to make them better and to be good leaders tomorrow mhm. but as far as mature person is concerned especially bi nga xamee dem nga be am you know certificates in teaching or whatever what we can do is to help you motivate you si courses yi nga xam ne li ma from this school di ñëw tëj before summer time New what teachers yi you apply within their sub areas regions yeeg yooyu ku nekk nga dem after refresher two two weeks refresh am rek mooy ne rek understand nga weakness ki ki instructor bi o trainer bi dina ko xam mu xam ne teachers yu bari lii lañ face challenge bii lañ dee face su ko defee moom itam mu jël loolu motivate leen su ko defee elek su gaay delloo class classe bi they can do better but if you want to bring exams module as I say if if if sixty percent of those people or seventy percent they fail, <laughs> Ganelegi can do them see class B. Then thirty percent of our teachers would not be not able to you know uh, teach the entire country. Mm. Asan, um, ñu ñëw nag do you think the government definitely mm. anything for um, tackle ko and you know recovery plan We do you think it is extremely slow and ñeneen ñu ne flood si moo more uh, demolition began the more ne moom moo nekk di the jabang you know ñenn ay seen kër yi yu woot na millions wax dëgg ne yàlla ah, you know soo seetaan sax ñu ngi koo daaneel sa yaram dafa daw lan mooy sa gis-gis ci loolu yëpp. well sa laajte bi am two sides ah, first of all so have flood si gis nañ ñu <laughs> politicians, politiciens yu bari ñu génn di in si ndox bi du solution. Bahna, yes even you know visit people and so and so forth but do it in a way not to do it because waaw ah, balal ma <laughs> ah, gis nañ politician yi you know gars yi génna nombo tànka ni di dugal di fay and so and so forth Why? def ko in a way not to politicize it mm-hmm. because nit ñi ñoo am seen métit métit ñeneen ñi soo fa mënut a éega sax nekkul ne ñoom rek la de am na ñu nekk ci digi dëkk bi sax ñu ngi am seen métier am na man pa place yoo xam ne ñu bari dem ne am ne seena seena because xam nga ndox fu mu jaar rek yaaxa la yeneen yoo xam ne kër yoo nekk within the communities they are affected why come back to li nga laajte nii at the local government and the central government path ñii seen liggéey la nekkul ne because yow am nga ñoom flood la rek liggéey président la liggéey ministre la liggéey mayor la liggéey MP la or no necessarily but uh, even councilor ñoom ñoo am pour dem understand nga loolu seen liggéey la loolu mënut leen a jox political advantage ñeneen ñi nag ñu ngi ko jëlee di si def political things and so on but again what we are saying na ngeen xam ne rek you are there now pour ñu put li ñoo ooyee contingency plans in place because ndox door na te lii dafay ñëw at bu nekk soo mënuloo ñëw at bu nekk nga ne da ngaa dem di wa waa Farokono nuñ Wa waa wala Talinding Farokono wala ñi nekk ci understand nga flotte yi nu ñoo so loolu du solution bi solution bi mooy to look at a grand plan because bi dañ war a dëkk seet dëkk bi nuñ ko war a defaree pas am ah, pour wala affaire flood one of my most important things si suma manifesto time bi ma atem who run for mayor was about erosion because ñun calculate nañ ne kër yu bari ñu ngee yaaxu yoon yu bari ñu ngee yaaxu pas ñun gis nañ si bundung bi fii you know si biir biir bundung tali deka dëkk koñ yoo xam ne amoon na talifin yoon yëpp a yaaxu nga dem bakaw tamit di same thing pax yéeg yooyu noonu nit ñi fi ñu daan jaar duñ fa mën a jaar so it was caused by erosion erosion mooy ndox bu bari buy ñëw mu cause flood bi mooy ñëw bi ndox bi ñëwee càng mu yaaxal nit ñi yaaxal na nit ñi government bi nag they haven't done enough but lot of promises anyway so nit ñi duñ mën a dundee si promises I think ne looloo tax in fact we hear waa Banjul ñu ngi complain and another thing which I forget to mention President Barrow makes a lapse of judgment when it comes to the Banjul project. Mom, him couldn't justify it. Let's say that mom, he has to learn from this. Mm. not desperate, pour banjul, damabuga gis pour seka banjul rek nga xëy dem jox contract koo xam ne assessuloo ko kooku amul good background because some of us we were complaining about this there was not even a website for this uh, contractor amul know-how bi yow kooku ñëw nga ne just because offer na la a pre-finance deal pre-finance dafa mel ni pas yow nga desperate pour am kër on an empty land rek man ma ñëw ma ne la pa man bilda laa dinaa la sampal kër bi yow soo sa néeg and yow yow daal ba nga nga duga néeg nga dem duga si néegi néeg ñu néegi njogaan boo xam ne pa yëpp door néegi suuf ah, ndox bi ñëw di ko yóbbu so in essence he even bear responsibility for that because where was ana ñi waroon a monitor the Banjul project ñoo rek sekat di man pa ñun gisoon nañ ko ñoo rek because ñeneen ñi they were people of Banjul they fall for rek amna sidewalk defal nañ ma pavement it's not about that ndox dafa wara am fu mo jaar mu dem so they bear responsibility it's a big failure because now they using taxpayers money suñ halis pour fake ini, and then liggéey bi baaxut yow loolu nga da da nga desperate pour ne rek yow na nga am nek man ma jógee fale ñëw rek ne ah man naa la offer lii nga ne waaw kon ka sampal nga ma rek mm-hmm. waaye su la sampalee You have a responsibility for that anyway, Chigata. Then come back to yangi yeah. <laughs> demolition bini. Magata bobu silin chidega pa moinereng. People we being like the nyom they have been affected in a way. Government again failure, failure of government. Notice, notice, notice. Pa why? lii man gis naa ko and we handle lot of cases ñeneen ñi dañoo dem di daaneel seen fensi yi boobu moom gis naa ko ay Banyankala ay you know next to uh, Jabang sax boor yooyu noonu bi ñoo lal pipe si sax duñ notify they don't even give a written notice loolu it naweek la xam nga li ma la wax ni water company bi la and all those things I've seen it and I've cases two three cases on that ñu dem daaneel fensi jàmbur yi pour pipe but you don't give them notice so government also fii liñ dégga and which is which is worry you give notice do mun a dem rek fekk need ne ñëw rek ne dama dañ soxla fii rek Daniel. Then koo jox notice over six months even su feka ne dis nga xam ne am plan mu xam ne understand nga yaa ngay ñëw su ko defee moom itam mu mun a jël mu jël understand nga ham ne dafa dem living Why do hey rek ñëw ne ko de la ñun dañ fi. yes we know that the state needs something and the state should have it under the laws, the State Land Act, understand wherever there is demand, we know under the land law, laws of our land when it comes to land issues, public lands, and so on and so forth. But again, it's a big, they should compensate them one and two more because you don't give that notice is very, very important. i found many bad certificates, Hey, Reg, did you have bad certificate? you Notify on it. It's the biggest weakness in this government. I can say that. Press releases, they are not enough. Not everybody can read. But not everybody can read. Finally, Asan, uh, thank you very much your time. On the issue of GFF election, ah as ñu ne fu mu nekk nii samedi rek uh, decision time am uh, which side of the divide are you on you ne ñu ngi kaba You ñu ngi kaba. apa <laughs> ah, pour wax la tuuti ah, dëgg dëgg ñun Um, yaga na di gis football football yi Gambia gisoon nañ what was Gambia 11 ñoom biiri Alaaji Ñaan goalkeeper Sao you know. Um. Uh, Gambia used to have talents ñoom Bill Baji, you know um, ñoom um, Seewu Sarr ñi yëpp ñooñu yëpp campé nañ Bakau fekk ñun ñoo ngi a defal ball boy gisoon naa football before the opening of the new stadium in Bakau which was 1983 84 485 stadium bi yëpp ñoom Assis Kor uh, you know ñëpp gis naa leen ñun de in fact some of us played to the level of junior squad understand I played also up to uh, first division again I'm playing Naweta and East West <laughs> Serekunda. I'm knowing very well the state of football. I'm a fascinated like now football because playing now I'm a footballer but again um, really fi mu nekk nii pour gàttal élection in GFF moo ñëw. Mm-hmm. suñ footballing living be war to improve. dëgg la um, GFF élection la you ne nyari nit ñoo si which is Kawabayo and Mr Kamaso but so ko xoolee tamit um, man li ma believe mooy uh, uh, the farm administration dina mu football bi kanam so in essence uh, so xoolee this uh, um, two of these caliber people um, degala la um, Kena moko upper experience when it comes to administration. I, I know Kaba, not ne put this thing, I haven't seen him for a long time, but I know one thing is administratively, he is good at handling issues. And I think ne, uh, under him, probably I can see a less, understand ga, uh, yefinju njaji, dina wanyeku. How makale na. but again, understand lima wani, hearing a story which are not impressive, mm. you know, I don't think, I think also my idea if Kaba has done the next four um, years, I think that will be end of it. So I think Nesufeke and Kaba stand reform correct when it comes to, you know what I mean, the foundation and the, you know, laws of the footballing association. I mean, munna the four years but xamne su lulu, gaay mu try mu def make a difference xam then mu am fofu Funonu, then key may try but key as far as I'm concerned I mean maybe I'm not impressed at certain things that I hear when it comes to well, we have a problem in this country country money money money ñeneen ñi dañoo bëgg a place pour am xaalis place du pour am xaalis te lii moo dal ñoom Bakary ak ñoom Talib let me say this uh, sorry one minute yoo gisee ñuy ñëw si affaire yi mayoral bi dafa am ñoo xam ne dañ bugg a place waaye pour def liggéey bi is becomes mun ngaa use party or anything pour win election. Mm. pour pour def liggéey bi te place dañ war a moytu xaalis xaalis daf dee indi especially with politician ku ne pour nga nekk position pour nga dunda si kaw nit ñi especially taxpayers mais ci gàttal rek mooy well let them watch um, yàlla def jaama si footballing association si let's see who can make better for our football but I think continuity will help here.